kontaan euh, kontaan nag yu bari la daje ndax daanaka jataay yi fi teew yëpp jataay yu ñu teewee la te yooyu jataay yooyu mën na wax ne ñoo ubbi jataay bi fi teewee jataay bi fi njëkk dan laa ñaanoon jiite maire moo jataay bi liñ la njëkk ñaan ñu màggal dem yàlla moo ñu loolu bëgg a ñëwaatee na laa taasuwaat ci yow ñaan mu jëm ci direct ndombal tànk muy directeur mbaa ministre mbaa lu mu doon ñu dem ñëwaat yàlla jàppandalaat da danga wax ju am solo ci biir mooy bi nga waxee ni loo ñaan yàlla def ko muy lu xel nangu ndax li tax xel nangu ko su borom dafa wax hal jazaahul ihsaan ilal ihsaan man lu rafet rek laa yor te lu rafet rek laa koy jaayee moo tax mu teg ci ne inda rahmatallahi xaribun minal muxsinin na yàlla lu jege way rafetal moo tax bu ñuy sàkku ci yow ñaan dañ ci am xel mu dal lool ndax ñaar yëpp mi ngi ci yow rafetal rafetal googu it bu njëkkee ci yaw mujjee ci yow kon mooy tax mu gëm am yëqin bu wér ni yërmande yàlla loola jege la kon kuy sàkku ci suñu borom loo xamante ni bëgg ci yërmande bu ko utsee ci yow amaana dina ko yomb loolu moo dal na suñu xel lool dal na suñu xel lool lu ciy teg mooy di la ñaanal suñu borom mu guddal sa fan may la wér awa yàlla suñu borom dafa wax lu am solo almaalu wal bannuuna zinatu xayaat dunia dafa mel ni foofu la nit ñi am nag dañuy jëflante te jëflante yëpp ñu teg ko ci leer yi ak koom-koom yi àdduna yi nga xamante ne dafa dul taaral waaye du loolu dëgg-dëgg moo ci ñor yàlla waaye ñun bir nañu ni li ñu jàppee mooy li ñor yàlla dëgg dëgg dëgg wal baaqiyaatu saalihaat xayrun inda rabbik loolu mooy moo ñu moo ci ñor yàlla suñu borom te noonu nga ñu jàppee mooy jëf tey rafetal jëf ci loolu kontaan nañ ci leneen li tax ma bëgg gën a jël paroon na mooy suñu première dame man première dame laa koy woowee ndax état dame la première daam tolluwaay la léeg-léeg ma wax ko première dame am ñu ma bindal pre ni ma deuxième ma ne leen déedéet l'incarnation mooy première dame ni mu wanee mbëggeelam ci Mamadou moo mat moo kamaal ndax dafa am ñoo xamante ni ilmul yaqin lañ yam am ñoo xam ne aynul yaqin lañ yem am ñoo xam ne egg nañ ba ci aqul yaqin moom nag ci ñett yëpp wane na ci bëggam ci Mamadou bi ci njëkk mooy bëgg bi ci xol bi mën nañ koo tuddee ilmul ndax moom moo ko moo ko moo ko jàng ci digganteem ak moom ba yëg ko loola xëy na loolu moom lu intime la ci ñoom ñaar mu des nag bi nga xamante ni moom la war a seede suñu diggante ak moom ak Mamadou muy aynul yaqin bi lu ñu gis te mooy fekk terrain bi jëkkëram nekk mu fës ci nu ci benn soxna kilifa gi mës feeñe moo tax ci aynul yaqiin ñu gëm ni loolu kat lu wér la luy feeñal mbëggeel mbëggeelam diggante ak Mamadu li ci topp nag mooy ni mu ko rafetale ni mu ko rafetalee mooy aqul yaqiin ji ndax nit dina def jëf ngis tal ko su ko ngis rek rafetal gi ci waroon a am amatu ci loola moo tax ñu gëm ni exaan la ko defee ndax day dimbali ay nit yoo xamante ni lu jiitu mu leen di dimbali lim leen njëkk a wax mooy duma leen may xaalis ndax olof yi dañuy faral di wax ni nit boo ko dee jox saa su ne la muy dundee bu yàggee nga sotti ko loola mu ne du leen may xaalis waaye dinaa leen dimbali ci xool li ngeen bëgg xam nga nit ku nekk sëñ Abdou dafa doon wax am solo dañuy jàmbaar amul kuñ dimbali moo am am na nit ku nekk nit ñoo xamante ni xëy na ak njàmbaar mi ngi nelaw ci seen biir yaram waaye ndimbal lu koy feeñal moo fa newul te ndimbal loolu kat mooy ki war fekk ci liñ nekk mu gunge leen ci ba seenu njàmbaar feeñ moom nag loolu lay defal ñu muy séqal mooy dama lay xool ci terrain bi nga ne lan nga bëgg pour yëngatu lan ngay def pour yëngatu loo xalaat ni moom nga war a def pour yëngatu mu ne nangam ak nangam ak nangam mu ne ko danaa jël nangam ak nangam jox la nga dox ci nangam ak nangam jooju jël koppar yooyu di ma ko delloo si nan ko mane loolu mooy teral nit ba pare bàyyi kook ngorom ndax bu fekkee ni nit dimbali nga ko mu liggéey ba am teraanga te fekk lan ko joxoon delloowaat na la ko boo xoolee day mën a siggi Mhm. ndax dina xam ne dimbali na ko dimbali nga ko mu seede ko ci mbooloo mi ba ñëpp dégg ko waaye dina am mérite ndax dina wax ni ndimbal loolee nga ko dimbalikat dellu si na waaye moo ko def tey li mu doon su boobaa nag teraanga jooju képp ku ci mën a dund ci kaw suuf bokk si njabootam ak lu mu mën a doon sadaqa jaariya boobu nit ñi di daw bay tax ñuy tabax jumaa bay tax ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy sampi garab bay tax ñuy bënni teen da nga koy am mu sax dàq ndax benn doomam bu tekkee ci teraanga jooju nga ko def rek lii ña ba lay topp ku tekki ci teraanga jooju rek nga jot ci sawal mm-hmm. te loolu mooy li ëpp solo ndax yàlla suñu borom bañ ne ko ba bu nit di jëf buy nit di jëf ngir moom sax li mu njëkk bëgg nga jëf ko mooy mm-hmm. jëfal nit ñi ngir moom ndax nit ñi ciy jariñ mu fay la ci loo xamante ni dafay kawe sa ñor moo tax inna lazina amanu wa amilu saalihaat saa bu ko yàlla waxee lam ci ay teg pay guréy la moo tax nag ma bëgg nga ñaanal ko li ma bëgg nga ñaanal ko nag mooy mu gunge président bañ bañ ba mu doon président de la république Sénégal maanaam mu jëmbal incarnation première dame bi ca na mu matee nag na mu kamaale te loolu am naa si yaqin bu wér ni boo ko ñaanee yàlla suñu borom mu yéex wala mu gaaw dinañu ko defal loolu moom sama xel dal na ci lool première dame kontaan nañ ci yow man yàlla dafa def rarement laay bëgg nit moom dama ko bëgg billahi wallahi tallahi laajal laajal sëñ fàllu mii toog nañ ci jataay bu ne sëñ fàllu toog nañ ci jataay bu nekk kilifa gu nekk toog na musuma sant nit laaj laaj ko musuma musuñu musuma jël kàddu wax ci nit ku romb Mamadou Gueye musul am bi ma wax bi ma jógee ci Mamadou yow rek laa tegaat sa sama làmmiñ ñi dama laa bëgg barke Seydina Muhammad man nag sëñ Tuubaa dimbali na ma billaahi wallaahi taalaahi sa jëkkër doy na ma sëkk ndax teraanga yi ma yi yi ma yi ma am ci àdduna mu gën a màgg ci loxoom la jóge mu joxee ma ko ak yéene moo tax moom doy na ma sëkk wuruma kenn billaahi wallaahi taalaahi am naa sëñ Tuubaa am naa ko te doy na mu sëkk te li tax sama xel gën a dal ci moom muy bëgg gi mu bëgg sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yitteem yëpp mooy dimbali jaam yi moo tax bi mu bëggee sëñ Tuubaa muy dëgg ci moom sama xel dal moom ma ñeme ko te xam ni àdduna du yàgg mukk ba mu war mu ndéef ndax sëriñ Tuubaa baaxoowul woo nit ci teraanga ba mu wuy ko mu war ko moo tax képp ku bëgg sëñ Tuubaa te dëgg te mu dëgg ci yow ñeme naa la ndax biir na ma ni doo ma ndax bu la ko sa fit mayee sa xel may la ko sa ngor ak sa bëgg Sëriñ Tuubaa na la ko tere moo tax ma am yàqin bu wér ci moom dafa am benn kilifa nag moom dafa mës a toog ci jataay benn taali ak ay taalibeem am kenn ci ay taalibeem kuy ñëw benn taalibeem yëg ci xolam ni jëmm ji de ku ko soof la ci xelam rek la ko la ko wax kii neexuma waaja ba mu ñëw ba egsi ci mbooloo mi ñëw nuy ñëpp ba ci jëmm jooju tëb ko buñ ko tëbee kilifa gi ko lu tax nuyu woo kii mu ne ko kii moom sama yaram da koo yëgul sëriñ bi gestu taalibe ba xalaatoon ci xelam ne ko alxuluubu tatara koo bëgg-bëgg na la alxuluubu tatara boobu nag mooy dox ci diggante Yaya ak Mamadou Gueye mooy dox ci diggante Mamadou Diop ak Mamadou Gueye ay yëgante la te yàlla dafay def lu kawe maanaam moom Mamadou Gueye ñi ko bëgg nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñi ko bëgg ñëpp ñu bëgg moom Mamadou Gueye bëgg nañ leen ñi bëgg Mamadou duggee ñëpp ñi bëgg Mamadou Gueye bëgg nañ leen ah. te la tax ñu bëgg leen mooy mbëggeel googu nga xamante ni moom mooy wàll si su ñun di jóge si ñun di dem ci Mamadou Gueye DGD Kër rek laa koy bindal léeg-léeg ma bind ko am ñu reetaan boo ko waxee DGD Kër lu jiitu muy doon directeur général xol yëpp nangul nañ xol yëpp nangul nañ ko te bëgg Serigne Touba bu dëgg moo tax xol yëpp nangul ko su fekkoon bëgg gi mu bëgg Serigne Touba dëgguwul ñi ñi ñi koy bëgg duñ ko bëgg bëgg wéeru mukk am na ñoo xamante ni dañuy mer lool ci seen diggante ak moom waaye dañ koy gën di bëgg benn bis ñuy waxtaan ma ne ko kenn amul ku la gën ci gaa yi ndax buñ ko amoon duñ la mere di dellu si dañ lay bàyyi dem ci kooku waaye dañoo amul ku la gën moo tax ñu jàpp la kon lu mën a xew nanga leen ko jéggal xam naa ne jotaay bii laa njëkk a wax ci jotaay boo xamante ni teewe nga ko sëñ Fallou muy seede sa digganteeg Mamadou Gueye yëpp dégg nañ ko te xam nañ lu wér la noo ngi leen di ñaanal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam màggu bis bi nga xamante ni awnullaahi la tàmbalee woon ndimbalal yàlla waaye bi ngi jeexee ci riddallaahi gu yaatu goo xamante ni ñun ñëpp xaj nañ ci ñoo ngi ñaan riddallaahi googu nga xamante ni moo tax suñu Tuubaa woote bis bi ku ci nekk sa bëgg ci sa xol yàlla na la ko suñu a defal maa ngi jégalu ci guddal gi bu baax a baax waxtaan wu yaatu euh, relation bi foofu la tàmbalee fu maamam am lu baax yóbbu na ma lu maamam am ci yàlla ñaanal na ma ci taxawu na ma fu ne te nag li ma gën a neex ci moom dafa yor jëfinu kilifa ndax yàlla da ko may lu bari mais dafa suufeel boppam bu ñëwee bureau sax day toog tuuti ne ma saa yi mbaa doo bari ay kii xaaral ma jug dem wala tout le temps da ngay sentir ne buggul sax di doxee wala muy waxee ki mu doon ndax wax dëgg yàlla nag euh, papaam nekkoon na xalif général de Layènes te bu ñu waxantee dëgg loolu du lu tuuti ndax ñun ñëpp Dakar lañ dëkk te Ndakaaru ñoom ñooñu fa yaatal ñu fa teeru euh, bu ma jugee ci moom nag damay tàbb ci sama mag Mamadou euh, Mamadou moom dama am natt ci moom quoi man moom cofeel dafa am suñu diggante te loolu du loo xam ne yàlla mooy boole ay nit ndax sama histoire ak moom dafa yàgg dama génn école nekk Ngor Almadi biir liggéey boobu xaw ma ko sax benn jour mu woo ma ne ma dama lay encourager li ngay defee sa liggéey macha allah ci biir liggéey boobu dafa am liggéey bu ñu ko santoon boo xam ne man dafa am lu ma ci laale mais bi mu koy bind nga sentir ni mu ko bindee da ngay sentir daf ma sotal quoi conférence internationale bu am daf ma ci bëgg a boole boobu xamantewuñ sax mais man toog naa sax ma ne waa ma ne kii moom xaw ma ko mais lépp lu baax rek ma ciy bëgg a boole yàlla di def ñu dem ba bokk service mm-hmm. bi ñu bi ñu bokkee service nag ma ne ah man nag gor laa kenn du ma jam ma ne ko comme moom moo ma wanoon lii man dinaa ko won ni man defal na ma lu baax man am naa ko fay ci biir liggéey bi ma farloo bëgg mu am ndam gis muy politique ma ne non dama ci dugg te man bu may dugg damay sóobu moom tamit mu nekk nit ku baax nekk gor mm-hmm. te mooy nit koo xam dafa dafa am lu ñuy wax jikkoy sëñ tubaa sëñ tubaa jikkoom bi gën a màgg mooy sëñ tubaa digaaluwu la kenn bor moom loo ko defal mu fay la ko Moodu tam noonu lay doxee moom loo def ci moom lu baax fay na la ko wala mbébét na lu lu ëpp loolu dem nañu ba nii bokkatuñu service mais bu ma ñëwee bureau du bëgg ma génn vendredi ñoo añandoo bi may ñibbi dangay ngay gis sax day triste parce que nit ku baax la te boo nekkee moom ak jaar-jaaram da ngay xam ne jàmbaar dëgg la parce que fi jaar metti na euh, li mu dund metti na mais changé wu ko li ni mu mel la mel mooy nit ku baax koo xam ne bëgg nit ñi bëgg dimbali ay nit bëgg dimbali ay doomu parfois dama koy tooñ sax ne ko yow benn faiblesse nga am mooy euh, bëggoo ko la mere te sa gars yi parfois dañuy jaar foofu quoi mais même loolu loo ko wax wax ci nit ki la nekk te loolu ay màndarga nit ku baax la soxna si nag moom tam maa ngi koy gërëm ci teeru bi ci dalal bi euh, di wax ni bii mooy suñ ñaareel yoon ñuy tase mais ñoo ngi déggante lu ba maa ngi dégg ci moom lu rafet lu muy def di ko encouragé di ko wax ni na góor góorgóorlu bu baax ndax am euh, borom kër bu mel ni moom du yombul njabootam dafa yaatu euh, ginnaawam yaatu xam naa ni moom yaatu na dënn sax ndax vraiment ni nit ñi waxee wane na ko mais di ko gën a soññaat ak euh, accueillir njaboot gi euh, jàppale leen ndax xam nga boo boo boo amee koo xam ne moom euh, nit ñi yemuñ rek ci topp ko mais dañ ko bëgg donc xër beeg yëpp ci ci ci da koy dund te yow mi ko jege souvent sax yenn moment d'intimité yi ngeen war a am doo leen ko am c'est difficile mais nitu nit ñi moo demee noonu te fi ñu koy ñaanal du sax nekk directeur général des impôts et wala ministre mais mu dem ba nekk président de la république am na qualité yi am na xol bi am na qualité yi qualité yi bu may wax nag mooy intellectuel humaine euh, ba pare dal na te am na yërmande gi ndax euh, ñun toll nañ foo xam ne wax dëgg yàlla lu bari lu ñuy daw nekkatul pour ñun mais pour pour askan wi la donc euh, loolu laa bëggoon wax di leen gërëm yéen ñëpp di gërëm Tafa mos na ma woo benn jour waxtaan nañu moom tam wan ma cofeelam ci Momadou di gërëm nag sëñ Fallou comme ni mu def sànq euh, mujjeewu ma ci moom damay njëkkee ci moom ndax sëñ Fallou sama waay la te te te lu tax dama gis ni mu sonnee ci Momadou gis ni am na lu bëree bëree bëri am na rôle bu am solo bu muy joué boo xam ne ñun dafa bokk suñu culture xam nga ñun ay tubaab yu ñuul lañ wax mënuñu ko waaye waaye waaye sëñ Fallou moom côté côté boobu ñoo ngi ñoo ngi jël ci moom lu bëri di jël ci moom ay mbóot te macha allah macha allah vraiment nit ku baax la ba pare nit la koo xam ne eh, am naa ci moom cofeel bu mag a mag a mag di gërëm sama gars yi sama sama sama gars yi di gërëm Massar Massar sama waay di gërëm sama gaay yi vraiment di leen wax ni kontaan nañ lool eh, te lii nag mooy dëgg-dëgg màggal gi màggal gi mooy nañ ñëw eh, ci mbégte ki ko santaane mbég ci mbégte la ko santaane ndax da doon sant yàlla ndax euh, li ñu li ñu li ñu li ñu li ñu yàlla daf ñu ne iblis seen noonu la ndax daf leen di tere ngeen sant ma boroom bis bi ñëw ne man woowuma leen ci ci jaamu yàlla bi bi ma bi ma leen woo jaamu yàlla bi ci gën a kawe mooy sant man boobu laa leen woo ku fi ñëw sant le ma bég bégal ñu la euh, seet si teral gan yi dëggi dëggi moom li mu doon woote loolu nga def moo tax jotaay bi xam naa demee nii maa ngi leen sant leen gërëm leen wax ni wax ji gudd na nag mais ngeen baal ma. maa ngi jégalu kàddu yi nga fi dëgg yàlla samay kilifa mënuñu toog wax may jël kàddu Moustapha mi sama kilifa la mu teewal Mamadou sëñ Fall bu waxee kàddu Mamadou la yor yaa génn wàllam la sëriñam toog. ak ay soppeem sëñ mm-hmm. xaadi mm-hmm. kon moo woon jël kàddu daanaka wax nañ lépp waaye dañuy wax ni que su ay nit dajee yàlla moo fay taxaw te baatu dëgg rek a fay jub te képp ko am dëgg denc ko bokkoo ci jullit yi man nag duma wax ci sama bopp damay seedeel rek kàddu yi ngeen di génn ci sama borom kër ndax xëy na boo nee soxna doon na ci ko gën a jege diw baax na ñu ne mbokk yi ñoo ko wax mbokk yaa ngi waaye mbokk yi nag dafa am ku sës ñu soxna kon su waxul dëggal seen kàddu yi day mel ni

maa ngi koy doog a wax daanaa wax rek ni góor dëgg la di leen xamal ne nag ku ko jàpp jàpp góor jàpp ku baax bëgg ku baax ndax jikko yooyu yëpp dafa nekk ci moom ma lay wax ne sa waa jooju ko téeg sa fukki loxo ndax dafa soxla ñu mel ni yow daf ko soxla loolu dafa soxla ñu ko wër parce que dafa nekk benn te ñu bari yaakaar ko bëgg def lu bari yan lu diis te di ci daw ak moom sël su ma nee sël nag c'est pas que da nga léeg-léeg ngay daw xëy na ñuy jàpp day bëri de waaye fa ñu war a jàppee fa nga dul gis ma la ciy bu baax di la am nga xarit bu baax Chérif am nga taalibe bu baax may jéggalu ci kàddu yi gudd yi rek yow moom daanaka wax nga sa rak sa lépp moom amatoo looy wax moom lu kontaan rek di sant kilifa gi sant yaya mm-hmm. ñii fi ñëw moom ay kii móor lan ñoom moom ñu nag mooma yem ci kër gi <laughs> jër ñu leen a gërëm wala dara ay bàyyi faalu kër gi lan maa ngi ñooma fi yem <laughs> sant soxna seeg sama mag yi ñëpp ñoom tamit ñu ngi góorgóorlu sama mag balsaw ñëpp ñëpp ñëw mbokk yi ñëpp a ñëw mm-hmm. kenn ku ne la ko war ci mbokk mi ci moom mi ngi koy def mm-hmm. di la ko seedeel li ko war ci mbokkam mi ngi koy def luy teraanga rek ñu ngi koy defal maa ko seedeel

mënuma la ni sama papa Ndiaye wala mu ñëwaat délégation maa ngi fàttaliku Pape Diop dafa ñëw mag ñi dañoo baax gars yi ci touche bi rek xaadim ñu mu ñëw ci Serigne Saliou bu baax yàlla yàlla yokk leer. bi fi ñëwee mu ne ko dama bëgg jël Ndakaaru. sëriñ saaliw na relation dafa ñëw ci sëriñ saaliw ni ko bëgg a jël meeru ndakaaru sëriñ saaliw ne ndakaaru dafa am borom boo demee ci Ablaye Thiaw mi ngi fekk sama papa HLM Guédiawaye këram gi nekk ci PAI bi eh, sama bu xasee ba fatu se fiñ mais eh, ban tuddee turu sëriñ saaliw nañ leen la leen na ñëw ak man ni ma ni sëñ Saliou meloon ci man ko xam kër ga xam bàyyi euh, bàyyi kii ñang Moussa ñang xam nga kon sëñ Moussa xam ne xam nga kër sëñ Saliou mu tombeek tamit euh, sëñ Fallou Mbacké bi sama maam ne la dafa yabal sëñ Fallou amoon na doom bu tuddoon sëñ Abdou Karim mënul bii sax oh. mu yabal fa Baye mu Ka mu taalif fa yam fay taalif yaa fa am am leneen mag ñi chaque jour mooy li nga wax ci ligne bi rek la ne man lii ma dal nii sax tey fii yii dalu kon je préfère silence noppi di xool di observe dofuma Cheikh Tidiane si nee na butéel bi ab sàngara ku naan màndi te butéel bi du màndi mukk bi loolu amee mënu ko demal ci Ablaye Dieng ñëw ni sama si sëñ Saliou moo fi yónni benn taalibe muy na egsi mun nga ko wax la mu koy wax mun nga ko Dakar mun nga naa la may sama naa la may Dakar may na la ne loo xamul woon mun nga dossier yi ma yi ma defoon di ko yéegal sama borom defoon naa ko waaye maa ngi ciy boole sa sa moo tax xaadim ko naan ñëpp am xamoo la xew xol nag xol mooy yàqal nit xol mooy yàqal nit xol ni muy yàqal mooy euh, koo gis mu am dara yéene ko ko mooy li wax tuta la ñun tuubaa gi duma ne ni mu mettee mettiwul mais boo xalaatee boroom lim ci daj dara du la sax hmm? soo xalaatee fi mu jaar mag ñi nag dañu dañuy tàngal dañuy togg ceeb bi ba mu ñor yàq nga mais ñi ñi koy tàngalaat ñooy xooñal ceeb bi mooy mag ñee togg ceeb bi ba mu neex ñu joxe ka mais ñi kay tàngalaat ñoo ko xooñal mooy coow lu bëri li te jëmut fen du bi loolu amee sama pap man ma du ma ne dama ko essayé ci moom ku ne xam nga dama ko yéenoon bi mu toogee fii ci kaw moo tax defe naa élection yi bi mu jàllee ci guddi automatiquement Mamadou Gueye laay déglu ma ne xale yi Pikine lu fa xew Kayar lu fa xew parce que ñaar ñooñu ñëw si ñoroon parce que defe naa meeru Kayar taam taawu suma turandoo bi loolu amee moo tax ma am ci yaqin yaqin bi nag mooy ci bis bi li fi xew soxna si tëdd si keroog daaw laa ko fi gis ñu waxtaan ñu ootante waxtaan mais ñun sant nañ yàlla xam na li xew te dina yeggale lépp soo gisee kuy dox daa xam kii lan la donc du ay baatina di xam kii fi mu jëm. demoon nañ ba suñuy waajur dina ko jàngal waaw bon du baatin taataan man du dara man mën naa la sax xam si ngay mujj fekk naa man dama koy xam du dara du baatin dara yaakaar dama lay xool xam ne kii fii la jëm xam nga dafa la xam ne ay yaakaar te am na ay bërëb boo fa dugg si kii bi ma ubbee sama maam laa jël nii foofu du ay caaxaan de ah ubbi ko ba sëseeg sëy dinaa maamu alayhi te soxla si boo demee yaw yaay yëg ni am na lu fi ne am na lu fi ne kilo or ak cilo wëttéen nuróon bokk nañ tur mais bokkul lii kilo wëttéen la lii cilo or la bokkul tur ya ànd nañ waaye bokk mais bërëbu Seydina Limaamu sa maam fa ñu ko denc nekk fa waxuma la sax fàllu fañ ko dee mais armée li ne ci wetam kii joxañ naa ko armée li xool armée li nga xam ne le 29 août la ba tey 1909 ba tey munul fees munul fees da ngay wax doo gis dara bërki démb yàggul damay tudd turam ku naan Pape Mama Fall inspecteur douane bu port rakkam bu Pape Mama rakkam bu jigéen moo gaañu mu jox ma ko xaar bi dafa yàggoon France biñ ma ko joxee ma rob ko Cambérène mun ma dama sonn ma rob ko ajjuma ak laa ko rob samedi dimanche nu ñëw di defar tableau bi sampa tableau bi armeel yi pëtëx ñu wax gisuñu fa dara nu yuuxu ñëw sama biir kër kii magam bi ko dencee gis nga li maam moo ko waxoon sa maam moo ne kun ci suul bu ngeen ko fekkee nekkuma démb nekkuma tey moo tax ñun ñu bëree bëri xaadim yow xam nga ñu bëri comprendre nu laayeen jëf soxna si yaakam diw ma ne ree bi ngay lijjeen tooge rek am xaama tëjal rek dëgg la gis nga li mu wax ci àlla san salaam bi defe naa ci koor gi dama fa dugg di ziar dama fa dugg di ziar kii ma àndal mun ma sëñ bi xaw ma sañaan nangu na xaw ma sañaan mais man sama bas nangu na fi ma toog kii ma àndal ab taalibe cheikh la Assane mun ma xaw ma sa ñaan nangu na waaye sama ñaan nangu na alasan salaam boobu moo wax s dafa naa sëñ euh, bas xaalim aw ba ma tiim sëñ bas bas xaalim dafa bi Sénégal ñu ngi dem safara di man ko bàkk déet mun a bàyyi laay bi ñu wekk te moom mille huit cent ba tey mu ni mën a démb man a tey ba fii may waxee yow mënoo gis photoom fenn bu àddina bi bu àddina bi lépp tëjoon teen boobu boo sa xasee naan c'est fini amul feebar bu mu dul dindi amul lu mu dul def ci yow te bu màkk jotee doo gis ndox mi su màkk jeexee ngi seen tox mi di daw di ñëw bi ci garaaw soxna si mooy Issa ibnu Mariam mooy borom kaale noir et blanc yi mais attends lu tax chrétiens yi bëgg nu ñun mais war na jalaaw Issa ala xatlihi wa maa xatalu wa maa salabu wala kin subi yàlla yàlla ne rayuma Issa yëgal naa ko wàcc waat naa ko catholique yi dañ doon ñëw duñ topp suñuy bàyyi barke dem rek dal na ma benn chrétien daf ma seen rek yuuxu ni ma xetu Isaa moo ay xeeñ te boobu si ay jiin maa ngi sol jiin sol tamit basket di waaye di njaab bi wëy moo wax ma lool bi ma ko waxee li tax mu wax ma ko man xam naa li tax catholique yi sëñ Fallou bëggnu xam naa yaa des choses yi a xamante ni su ko fi mag ñi bàyyee yow taalibe bi bàyyi ka fi am déet xaadim seexul xaadim dafa wax wax ju rëy ba mu ne buuru ndar buuru ndar ne nga xanaa xam maa yeesu ndar suñu doyen man malaka ni dunya wa uxra indi sama ji bu dee nguuru àddina ak àllaaxira man seexul xaddim laa téye ku ma séddul lool mais boo demee ci sëñ Babacar Si bu baax mu neex bëgg moomu ah lan moo tax musiciens yeeg mbër yeeg nu mu tudd le 11 mai bu jotee Bob Marley day feetam gars yi dañ koy toppandoo bay tux damuy tuxe mais lan moo tax mag yi <laughs> duñu bëggante ci loolu loolu rek moo nekk sama digganteeg ñi man bég naa torop bég naa lool suba suba dama bëri ay tournée ci dëkk bi. te sama oto nee na paan fii waaw tey tey yi ma daal dafa metti man yoon yi dafa xam nga yii kii dëgg sëriñ bi du fu mu neex dem li mu du fu mooy dafa am instant te xeebul seen xalaat yàlla dogal mu xamanteeg président Modou Gueye jour bi mu toogee fii ba ni ko sama barke maam li ngay yootu boo ci jotoon ma xàcc dama tiit muy màggal daawaati jéeg fekkante fekk si loolu dama tiit ñu dugg te ma ne ko sëriñ bi ma ne ko dégg li nga wax mu ne ma waaye yow yow yaa ci am xalaat waaye du man ba mbir ma amee ñu pare ñu jubal foofu fekk que euh, ngu ngeewul gàmm ñuy bégee loolu tey bu ñëwaatee feddiliwaat lii nga xamante ni moom la waxoon te ñam ko waxandoon kenn deewu ci ñëpp ngi toog dëgg yàlla ak sant yàlla ñuy ñëw yàlla dogal courant alternateur bi dàgg ah mu ni serveur bi comme ci Mamadou duggee lañ jëm nañu soox ndax sama digg moom ñu ñëw ba fii oto bi fay nangootul tàkk ñii dox di lijjanti ba xam fi kër gi nekk kii ni sama oto laay taal sëriñ bi ci lay dugg yaayaa mi toog sëriñ bi maa koy jëli donc jëf jooju nga jëf rëy na ci sëriñ bi rëy na ci njabootu sëriñ bi beneen bi ci des jëfaloo ko sa bopp waaye président moo dugg yi nga ko jëfal kon bu ñuy waxee li ñu wax ci sa diggante ak président dañu koy nangu ku yàlla na yàlla fay la. te bàyyi fan yëpp génn parce que xam ne kii ñu pare ma jaar ci sëñ Mountakha. am na lu ma ko wax. ma ñëwee ku ne seen lu fa tey mu xëcc ni ma toogal fii kaay toog fii. mën naa toog sëñ Mountakha ci ci seize. mu toogal wax ma. ma la ma sëñ Saaliw waxoon. waaw ah. sëñ Malamine Bara Fall waxoon ma ko. Ah. waxal toog seeti lu baax dafa am solo. seeti lu baax dafa am solo. mais boo ko yemalee fi nga nekk doo xam doo xam. dëgg la mandat bi jeex na. jeex na wallaay. xat mi la. kat mi la bu Cheikh Ahmed Tidiane yi. ci yooyu rek la may. waaw ñoo ngi yaa Chérif. kat mi mi ngi amee ci weeru safar bi. xam nga waaw kay ci la kaano ci la kay yonent bi alayhi salaatu wasalaam yee vingt quatre prophètes yi ak moom ñuy vingt cinq. ñu ñëw di ko takkal bàndoo sakkan si am amit Tijaani vingt quatre prophètes yonent bi vingt cinq am Seydina Mohamed kan lay takkal baalum Cheikh Ahmed Tidiane si bañ ka ka takkalee ku ne gis nga la xew Seydina Alimaay moom jël gàmm lam ca wax soo jàng téere bi sànq da nga wax rek may juuxu wala tëfu maa dara waaw parce que Tijaani moom la ñu def bind wala këf dafa ma Maodo dafa ne wala këf mu ne loxo Rasulilaay maa dara mu ne musul dóor un san jigéen wala sakaran daawul dóor góor maa xaadiman xaaba xaaba maa xaadiman muy daawul gëdd ay mundaanam sax waaye dañoo ñoo gis rek ma doon yëgal